واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا سدد لساني نوير جناني صفي أماني وصد برائي asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk jullit yi ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ni mu yellee ci jëmmam jiite as njaamam lottu ci matale ko lool waaye tey julli tey sëlmal ci sayidul kawnayni wa taqalayni wal fariqayni min urbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci sëriñ Tuubaa xaadimu rasul radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakaatihi amin di nuyoo mbokki jullit mbokki taalube yi nga xam ne ñoo ngi safoo tey saxoo di topp seen euh, émission bi di keppaaru mag ñi di am ci seen télé Rewmi TV dimanche bu jot 22h ba minuit téléspectateur téléspectatrice ñoo ngi nuyu ñépp ci nuyoo boobu nga xam ne mooy nuyoo bi gën a tedd te gën a kawe te mooy nuyoo bi nga xam ne waa aljanna moom la ñuy nuyoo te mooy nuyoo bi nga xam ne suñ borom tabaraka wa ñun moom la ñu boole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 ba mu mottali ko ci sagoom incha allahu taala te ñun jullit yépp ñu bokk ko ànd ak moom nuyoo boobu it la ñuy yóbbu ci kër maam Cheikh Omar Basir di ko ñaanal suñu borom moom it sàmm ko saxal ko ba yéeneem yépp it mot incha allahu taala tam ànd ko mboolem jullit yépp nuyoo boobu it la ñuy yóbbu leew na ñeseen moom la ñuy yóbbu Medina Baye moom la ñuy yóbbu Canaba moom la ñuy yóbbu Njaasaan moom la ñuy yóbbu mboolem ci këru diine yépp moom it la ñuy jox suñuy bokkee dëkkandoo waa jàngu bi nuyoo yooyu ak ziyaara yooyu yépp rek ñu ngi koy jox mbooleem koo xam ne yaa ngi teewlu suñu kàddu ak foo ko mën a teewloo di ñaanal it suñu kilifa barab bi te mooy alxaaji Mbañik Jóob ñaan ko suñu boroom moom it sàmm ko te may ko ndam ci liggéey yi nga xam ne naalal na ko société bi suñu boroom may ko ci ndam insha allahu taala te ñu nit ñu ànd kook moom ba ndam loolu lépp ñu fekkee ko insha allahu taala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci seen émission keppaaru mag ñi bi ngeen baaxoo am fii ci seen télé Rewmi TV keppaaru mag ñi ci xaru kanam yiñ ko baaxoo xamee naka jekk mooy bi muy amee benn ñu indi kenn ci suñuy mag waxtaanee ko wala ñu jukki lenn ci njàngum mag ñi nafaraat ko ñan ñooy mag ñi mooy ñi mag suñuy mag yi nga xam ne ginnaaw alayhi salaatu salaam bi ko yàlla joxee lislaam mu bàyyeekook saxaaba yi saxaaba yi bàyyeekook taabia yi taabia yi bàyyeekook taabia taabia yi ñu di ko jokk jokkaloo ba mu àgg si ci suñum réew mi ñuy wax as Sénégal réew mii ñuy wax Sénégal suñu mag ñi nga xam ne moom lañu yàlla booleel ñoom kat biñ jotee ci lislaam bi mujjewuñ puso bi mu réer suñu mag ñooñi seenub liggéey bu rëy bu ñu def ci lislaam waaye yaatal guñ koy yaatal waaye ndam yuñ ci am moom la ñuy waxtaane ci seen émission bi benn ñu tudd seeni tu waxtaane seeni jikko wala ñu jukki ci seenum njàngale daal koy nafaraat ngir umma bi man cee jariñu noonu lañ koy baaxoo def dimanche bu jot incha allahu taala tey ci forme boobu rek lañuy ñuy dellu siwaat andi tomb bu am solo am solo am solo am solo te ñu jukkee ko ci njàngaleem mag ñi ñu war koo waxtaani war koo nafaraat te mooy njàngaleem suñu borom tabaraka wa taala mbokk yi xam ngeen ne suñu boroom dafa am ay tur te mboolem tur yi turi suñu borom yi yëpp rafet. mboolem tur lu mu rafet rafet rafet rafet tur yi suñu borom yee ko dàq tabaraka wa taala suñu boroom ay turam amut tur yu ko gën a rafet waaye ay melokaanaam amut ay melokaan yu ko gën a rafet waaye ay jikkoom it amut jikko yu ko gën a mat ci tur yi suñu borom yi nit mu am ci tur yoo xam ne wala tur woo xam ne aw melokaan la ci suñu boroom suñu borom dara melu ne moom waaye nag am na ci ay melokaanam yoo xam ne. daf ko daf ko sant jaam bi ngir mu roy ko ci moom yooyu bokk na ci li ñu naan maandu al adl al adl mbokk yi xam ngeen ne melow suñu borom la tabaraka wa taala liñ naan maandu melow suñu borom la tabaraka wa taala te danañ ko gën a leeral ndax xam ngeen ne mbokk yi suñu borom moom moo ñu moom moom gu mat sëkk ndax kat àbbuñu mayuñuñu ko te jënduñu te luyewuñu it moom mooy yàlla moom moo ñu moom amul sikki sàkk amul xalaat amul ma dem te ñëw ku nangoo kuy bañ yàlla ñu moom tabaraka wa taala loolu moom waxatuñ ko waaw jaam bi nga moom maa ngi koy wax ci sama émission bi weesu jaam bi li mu moom mu yëfi boppam mu sañ koo jëfandikoo suñ borom tàggatal tàggatal ko ko bam sañ koo jëfandikoo nu mu ko soobee asamaa ak moom borom bi tabaaraka ko taala moom mi moom jaam bi sañ naa jëfandikoo ci moom coobareem ju ko neex ndax kat mbokk yi borom bi nim ñu moomee bokk na ci su ko neexoon wàcc ñu ci kaw suuf du ñu wax ne dañ koo war a jaamu te du ñu waxin nuñ koy jaamoo mooy dañuy wàcce ci kaw suuf rek ñuy telli tellee tajax tajax tañax tañaxi ba bés ñëw mu lem suufam def ko benn dossier dajale ñu ci mpénc ku ci ne xam na fa nga war a dem mu karaase la fa te su boobaa coow du jib mbokk yi ndax kat moom mooy ki ko sañ te bu ko defee kan dina kon lu ko lu tax ndax mbindeef yi ay mbindeefam lañ mbir yi ay mbiram lañ nguur gi it ak nguuram lañ te amul kum ko séddool amul kum ko ngar dajjool déedéet yàlla amul kum séqal nguuram gi moom képp kott dong moo ko ngar dajjool mbokk yi kon suñu boroom bu demee ba ba ne jaam bi danga maa war a jaamu mu ne ko nu ma la nu ma la war a jaamoo mu yónni sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ne ko jàngalal jaam yi ne leen nii lañ ma war a jaamoo alayhi salaatu wasalaam di ko wax ci làmmiñu suñu borom nañu nii la yàlla neena na neen nga ko ci forme bii ñu dégg loolu teg ci moom borom bi ci ak maandoom la jël ñaari malaayika tegal ñu ko ci kaw suñuy kaw suñuy mbagg kii tudd raqib kii tudd atid jaam bi bu defee lu baax raqib mooy bind su juumee def safaan bi atid mooy ki koy bind ñoom lañuy bind suñu borom xamal la yow jàmbi bi ne la maandute moo tax ma def loolu waaye tekkiwul ne man yàlla damaa xamul li ngay def wala buñ ko binduti dutee ma xam ko kon maanduk borom bi tabaraka wa moo tax mu boole ñoo ñaari malaayika yoo xam ne ñoo ñuy surveiller boo defee lu baax kii bind boo juumee defu safaan kii bind soo ëllëgee buñ dajee ca pencum yàlla ma yàlla dajaleel la say këyit ne la ba nga nekkee ci àdduna lii nga jëfoon xanaa amul ku gën a maandu yàlla di tabaraka wa taala allahu akbar amul ku gën a maandu borom bi tabaraka wa taala mbokk yi màndoom googu moom la ñu doon wax ci alquran naan ñu wala yazlimu rabbuka ahada mooy sa borom du la tooñ wala yazlimu rabbuka ahada sa boroom du la tooñ mukk alayhi salaatu wassalaam nettali nañu ci xadiisul xudsi yi wax joo xam ne ab xadis la boo xam ne xadiisul xudsi yi ci suñu borom la bàyyi ko alayhi salaatu wassalaam nettali nañ ko ne ñu sunu borom nee na inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaalathu baynakum muharraman fala tazaalimu xadiisul xudsi boobu boo demee ci saxiixul muslim da nga ko ciy fekk mbokk yi suñu borom nee na man yàlla xaraamal naa ci sama bopp tooñ man yàlla xaraamal naa ci sama bopp tooñ mooy duma ma tooñ kenn tooñ it jël naa ko teg ko seen diggante yéen yéen jaam ñi ngeen di ko moytonte yéen mbindeef yi sax ndax kat suñu borom ak maandoom egg na ci ëllëg yawmal xiyaamatul akbar waxul jaam waxul mbind waxul doomu aadama waaye mbooli mbindeef yi jamaa daaj yeeg yépp suñu borom day jël li nga xam ne mooy ak maandu teg ko seen diggante ba ci sax xar mi nga xam ne dafa mbëkk moroomu xaram bu amee béjjén mbëkk moroomu xaram mu amuti béjjén ëllëg yawmal xiyaamatul akbar suñu borom day nangu béjjén ya jox ko ka amutooni béjjén mu fayu mbëkk bi mu ko mbëkkoon kon xanaa kon li buñ ne suñu boroom moo gën a maandu dana neex a gëm ndax kat ak maandoom moo tax effort yi mu def yépp mu def ko mais bu ko defutoon ni dara du ko ci fekk moo tax mu ne man yàlla araamal naa ci sama bopp tooñ tooñ def naa ko seen diggante yéen julli nii mu araam seen diggante ba nga xam ne ba nga xam ne kenn ci yéen waru koo jëfandikoo ci moroomam kon wala yaslimu ko ahada jooju mu waxoon mën na xadis bii mën na koo dëggal wala moom it mën naa dëggal xadis bii mbokk yi suñu boroom maandu gim maandu moo tax mu xamal ñu ne ñu yéen jaam ñi bi ma defee effort yooyu yëpp ba noppi kenn ku ci nekk boo dikkee fii lu dul li nga jëf doo ko fi fekk lu dul yërmandey borom bi nag yërmandey borom bi moom exception la loolu moom exception la yërmandey borom bi moom suñu borom moo koy jox ku ko neex waaye bu dee diggante jaam ak jaam wala bu dee diggante jaam bi ak boromam lu mu jëfut du ko fa fekk moom laa doon wax ne olof yi dañuy wax barzàq man ma firee ko bersam sàq mooy nit ki bu demee am sàqam lam ca def rekk la cay fekk sàq ci waxinu wolof yaakaar naa ne suñu mbokki baykat yi ñoo koy gën a xam mooy waa dëkk bi fa ñuy de fa dajale seen dugub bu ñu bu ñu góobee ba noppi bu góobee ba noppi ba def liñ naan lippi liñ naan lippi ba jaag seeni dugub génn ca lañuy soxla ci diir bu gàtt génn ca la ñuy jaay leneen la nga xam ne soxlaa guñ ko fañ koy dajale di ko fa denc loola mooy am sàq mën naa denc dugg dund ren ba déwén kon bersam sàq mooy ku dem bar sàq jàppal ne yaa ngi beru ji nag fas yéenee dundee la nga dencoon hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan la yàlla nee na ndaxam ku def lu baax deesu ko fay lu dul lu baax waaye nag nee na wala taziru waziratun wizra uxra bàkkaar du wàlli lu waay jëf ëllëg boo dikkee fa kanamu borom bi moom nga fay fekk ndax yàlla dafa maandu moo tax mu ne inna allaha yaamuru adli wal ihsaan maandu googu yàlla def yàlla moom lañu ñu digal ñun jaam ñi ñu war koo doxale suñu diggante jaam bi ndegam yàlla dafa maandu diggam ak moom moom jaam bi dafa war mu wa maandu digganteem ak boroomam jaam bi naka lay maandoo digganteem ak boroomam mooy suñu boroom maandu gi mu maandu moo tax moom gim la moom jëfandikoowul pouvoir yi am ci yow yépp de dafa am réservé mooy kani maala moom sañ naa laa wàcce ci àdduna bis ñëw ma dugal la fu ma neex waaye dama laa jox ay indication ne la jaaral fii soo fi jaaree nii la soo fi jaaree nii la foo ci mën a jaar boo dikkee sama bo sama kanam am naa ay dossiers yuy tegu ci sa kanam yoo xamante ni amul loo ci mën a weddi ndax yow ma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bi ma kaanu yamaluun bis la boo xam ne soo naree weddi loxo yi day wax tànk yi wax bët yi wax gémmiñ gi wax cër bu ci nekk wax la mu defoon ndekam yàlla moo maandoo noonu sa digg ak moom yow jaam bi dafa war nga waan sa digg ak sa boroom mooy naka ngay maandoo sa borom wéel sa tawxiid ci ne amul benn buur boo xam ne dinaa ko jaamu jaamu nga doon dëgg di ma jëriñ ku dul yàlla tabaraka wa taala kon maandu gi war a njëkk a am diggante jaam bi ak borom bi mooy jaam bi dëggal ci xolam ne amul lu may bokkaalee yàlla amul lu may bokkaalee yàlla tabaraka wa waaye nag gis nga lu coow li bari bari bari bari bari bari bari bari bari nit ki mën naa nekk ci àdduna saa yoo ko yàlla mu ne yàlla diw su ñàkkee jàpp ne dëkkandoom dooma ko ko xañ walla mbokkam su amee jàpp ne sëriñ ba ko jox saafara mu sangoo koo tax mu am ko su mu su génnee ci xat-xat moom jàpp na ne jaaro ba mu takk la wala leneen ak leneen ak leneen lam def waaye nag mbokk yi lu coow li bari bari bari bari bari bari ku la mën a garanti ci àdduna bu bés ñëwee bañ tëral la ca jàkka ja bañ sang la ba sang la ba takk say tànk ak say loxo jël ay watin saañ ko ci say bët ak mbooleem pax yi nekk ci yow ba tëral la ci kanamuk jaag imaam buñ fa mën a indi imaam buñ fa mën a indi ak lum kawe kawe kawe diggam ak boroomam keroog moom day dégager responsabilité am kon yow teela la dégaale dégager responsabilité am ci yow bala ngaa àgg foofu ndax kat moom fii mu ne lu coow li bari bari bari bari bari bari bari bari bari kuñ teg ca kanam ci kaw aw jaat wax mbooloo mi ñu dajee ñu ne nañ la ñaanal baat yii moo fay jib moom kat sas njaam a ngi nii yàlla lu coow li bari bari bari bari bari sab jaam a ngi nii yàlla lu coow li bari bari bari bari doomi sab jaam bu góor la te doomi sab jaam bu jigéen la yàlla awma ci responsabilité de wóoruma ba xam gëm na koom déet waaye daanaa dégg muy wax ne amul benn buur bu dul yàlla كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به <laughs> gis nga kon kuñ la mën a tii tegal mu tiim la day dégager responsabilité yàlla sab jaam a ngi nii de doomi sab jaam bu góor ak doomi sab jaam bu jigéen daanañ ko dégg de mu daan wax ne daana seede ne de amul benn buur bu dul yàlla waaye nag yàlla xamuñu gëm na comme géet déedéet wa anta bi bihi yàlla yaa ñu ko gën a xam bu dee daan a rafetal yàlla na ko ko dolli bu dee lim daan def lépp ngistal la wala wóoruñu woon ba xam dëgg la am déet waaye waaye yàlla yàlla na ko ko soppil lu baax kon mbokk yi wallahi alazim ku yab yàlla dañ laa tegagul ci kuusu bàmmeel kon jaam bi war naa maandu digganteem ak boroomam ndegam bu fi jógee kuñ ko mën a jébbal yit day dégager responsabilité am diggam ak boroomam jaam bi war naa teel a ngooy ci boroomam balaa moo egg foofu jaam bi dafa war a maandu ne mankat kat maandu naa ci lu dul yàlla tabaraka wa taala mooy duma ma jaamu xërëm te du ma gisaaneelu te te te te te yu bari bari bari bari bari mooy kane amul benn buur boo xam ne danaa ko jaamu jaamu nga di dëgg ma jariñ ku dul yàlla tabaraka wa taala kon mbokk yi jaam bi ni yàlla maandoo ci moom moom dafa war a teg maandu diggam ak boroomam mooy dafa war a maandu ci ne amu kenn ku may jàmm mu di ma jariñ wala mu di ma xettali moo xam kuy dund la moo xam ko faatu la ku dul borom bi tabaraka wa taala bi yàlla maandoo jaam bi maandu yi yàlla digal ñu maandu ñu teg ko suñ diggante ñun julli ñi nit ñi dañoo war a maandu seen diggante nu ñuy maandoo seen diggante mooy kenn ku ci nekk ñu jox la sa àq mbokk yi bu maandu amee bu maandu amee nit daraja ju mën a am ci àdduna moo xam day ministre moo xam day président moo xam day kilifa diine ak ku ko mën a jur mbokk yi bu tooñee nañ jàpp ci loxoom ne ko diw da tooñ loolu mooy ak maandu suñ ko tooñee nañ ko jàppale suskaabu bout ba baa muy jot àqam loolu la ñu yàlla digal alayhi salaatu wasalaam daf ne unzur aqaaka waliman aw mazluman dimbaleel sa mbokk su tooñee ak buñ ko tooñee ñu ne ko waaw alayhi salaatu suñ mbokk buñ ko tooñee moom xam nañ niñ koy jàppale mooy dañ koy jàppale ba baa muy jot àqam jusqu'à bout waaye bu tooñee moom nan lañ koy jàppalee alayhi salaatu wasalaam nañu jàpp leen ci loxoom ngeen woo ko fee ne ko diw jéggalul yaa de allahu akbar mooy nit ki bu tooñee li koy dimbal li nga koy dimbalee yow mooy woo ko mu dem ba fee nga di ko sawaay nañ waxante dëgg sa gémmiñ xasaw na sa doomi ndey la koy wax lay dëgg tey dëgg mooy yaa de ak daraja ju mën a am ñun nag ñun nag daa mel ne maandu dafa manqué ci société bi moo tax fii mu ne boo amee daraja moo xam daraja yi àdduna la dangaa bokk ci famille boo xam ne bu ñuy tudd la wala bu ñëpp xam la soo tooñee lu tooñ ga rëy rëy rëy rëy des na ko nëpp nëppal soo bokkee ci nguur wala nga bokk feneen wala nga say way jur am alal léeg-léeg nga tooñ tooñ nga lum rëy rëy rëy rëy rëy rëy ko mbokk yi loolu du dayub lislaam lislaam lim santaane mooy ñu maandu diw bu tooñee lu tooñ nga rëy rëy rëy nañ jàpp ci loxoom ne ko diw yaa tooñ su ma suñ ko tooñee nañ ko jàppale ba baa muy jot àqam mbokk yi lii la sharia digle moo tax aaya ba du koon di wax ne wa katabna alayhim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروع قصاص alquran nee na ku rey nit ak daraja ju mën a ku ko mën jur nañ ko rey ku rey bakkan nañ rey nañ ko rey mooy peine de mort alquran nee na ku toj bëtu jàmbur nañ toj bëtam alquran nee na ku doj bakkanub jàmbur nañ dagg bakkanam alxuraan nee na ku toj bañub jàmbur nañ xool lu tool ne toj ca bëñ ba bu bëñ bu lépp dañut sax nag bu lépp dañee nañ dindi bëñam surtout tuuti tojee nañ natt lu tool ne lam ca toj ñu toj ci ñu toj ko ab bëñam xanaa loolu mooy ak maandu lii la ñu alxuraan digle inna allaha yaamurukum an tuaddul amaanati ila ahliha wa isa xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adli inna allaha ni'amma ya'izukum bi inna allaha kaana samian basira mbokk yi yàlla nee na dee leen jox ñi moom àq yi dee leen ko dee leen leen jox seeni àq maanaam dee leen jox àq ka ko moom saa yu ngeen di àtte diggante nit ñi na ngeen di àtte ci maandu ndax kat yàlla samia la te basiir la samia la te basiir la xoolal beneen aaya bi beneen aaya bi ci dikk alquran yaa ayyuha alladina amanu kunu qawaamina lillahi shuhada bil qist damay wax ne alquran yàlla wax gi li muy wax def koo ñor ndax bu ñu woon yéen ñi gëm seede ak maandu seen diggante su boobaa yi dutee danañ dégg li mu bëgg a wax waaye dane kuunu nekk leen qawaamiina di way taxaw temm lillaahi ngir yàlla shuhadaa bil qist di seede ak maandu yàlla nee na taxaw leen temm temm temm ngir yàlla ngir di di seere ak maanu mooy jël leen maanu def ko seen diggante ngir yàlla te ngeen taxaw ci temm nag kon loolu ab soññee la ndax bu ne woon yéen jullit ñi dee leen maandu rek du tey danañ danañ dégg li mu bëgg a wax te danañ ko gëm waaye ñor gum ko ñor moo tax mu ne kuunu qawaamina lillahi shuhadaa bil qist yàlla nañ ko dégg waaye xoolal fa mi jeexalee aaya ba lu lu mujjee i'dilu huwa aqrabu lit taqwa maandu leen ndax maandu moo gën a jege ragal yàlla maandu leen ndax maandu daa gën a jege ak ragal yàlla ne ñaari mu am na fu mu nettalee ci alquran ne ñaari kuréel bu buñ dee xeex ñaari kuréel buñ dee xeex na ngeen yéwénal seen diggante waaye naka ngeen koy yéwénalee mooy su ngeen fekkee ka nga xam ne moom lañ tooñ wala bokk su ngeen fekkee fukki nit di dal ci kaw kenn ngeen jàpp loxob kenn ka tanaan ee eh, bàyyi leen seen dóor bi waaye waay buñ ko rey buñ ko reyee yaa ko rey de su ngeen fekkee ñaari nit ñuy xeex boo téyee loxob kenn bàyyi kenn ka muy dóor ngaa ko bàyyi li ngay def wallaahi lu ko dal yàq ko teg da ngay téye ñoom ñaar ñëpp seen loxo ba noppi daan nga leen kaay leen ñu waxtaan yéen xanaa xamoo leen ni yéen a bokk lii xanaa xamoo leen ni ngeen demee ana lu jar lii seen diggante yàlla nee na loolu mooy indi jàmm waaye soo fekkee ñaari nit ñuy xeex nga jël nga téye loxob kenn kenn ka di dóor nga ko e bàyyi li ngay def saa yi ko blessé bu noppee loo mën a wax du tee dana fay mbokk yi kon lii ak maandu mooy soo fekkee ñaar ñuy xeex teel seeni loxo ñoom ñaar ñépp nga àtte seen diggante ñu yéwénoo waaye saa yow téyee kenn bàyyi kenn ka muy dóor ah mbokk yi jàppal ne lu ko dal yaa ko teg kon mbokk yi alquran digal nañu ñu maandu suñuy diggante ñun nit ñi ci ay barab yu ci ay point yu bari bari bari waaye danaa ci jukki ay benn benn mën naa cee jukki lu mel ni diggante miraas ak dondonte mbokk yi wàllum miraas dafa bari ay ruq-ruq yoo xam ne mbokk yi li ci gën njëkk a jaadu moom mooy dañ cee war a maandu waaye nag da cee am ay sew-sew yoo xam ne léeg-léeg mbokk yi day mel ni ak maandu da cay manqué ñu ci mel ni jigéen ñi ak gone yi mbokk yi miraas muy gone muy jigéen kum ci mën a doon da cee am àq nañ leen di bàyyi xel bu baax a baax ci suñuy miraas ndax léeg-léeg kat gone nekk fi ñuy miiras ne dañuy jaay lii dañuy jaay kër gi gone nekk fa ñu ne mënu koo jënd lu tax mënu koo jënd taaw bi rek kay jënd ndax taaw bi daa yëmut àq ak caat mbokk yi miiras taaw akub caat ñoo ca yem àq buñ dee ñaari góor suñ dee ñaari jigéen yi ñoo ca yem àq su dee góor ak jigéen it góor ñaari jigéen benn loolu mooy miiras mbokk yi maa ngi fàttali ne miiras doonul li imaam bii miiras wala sëriñ bii miiras moom mooy séddale moom mooy miiras déedéet day wéyal li yàlla digle miiras yàlla séddalewu ko ma demba séddaloolu ko ma sàmba code de la famille yépp a ci yam mbokk yi miiras yàlla moo ko séddaleel boppam tabaraka wa dama bëgg a wax ne bu dee miiras ci misaanu charia yi ci charia yàlla moo ko séddaleel boppam doonut aw nit wu dajaloo bind ko déedéet yàllaa ko séddaleel boppam kon ki toog di miraas la yàlla séddale woon lay toog di wéyal rek naa leen yàlla nee na góor ñaar jigéen benn mu am ak ay ruq-ruq yoo xam ne léeg-léeg dañ cay jëfandikoo góor ñaar jigéen benn te eggul fa am na ci ay barab yoo xam ne léeg-léeg ñu jëfandikoo ca góor ñaar jigéen benn te mbokk yi du maandu lu ci mel ne léeg-léeg nit faatu ñu jël alalam saraxal ko ci dajale njaal ma bëgg kaa booleeg miraas ma mbokk yi loolu dug maandu de déedéet nit ki bu faatoo alalam kenn waru ko cee saraxal magasin bi mu daan joxe njël dañ ko war a tëj li feeg miraas suñ ko magasin ba war a te ubbiku néegu boppam la ca nekkoon kopp kopp kopp sax laa wax kenn waru ko cee jëfandikoo tànk miraas ko suñ ko miiraasee ba noppi nag kenn ku ci nekk la nga ca am lu la neex jëfandikoo yaa ko moom waaye nag nit ki bu faatoo ñuy ibbi magasin di jël ay ceebam di ko ci saraxal mbokk yi loolu du maanu loolu du sharia déedéet kenn waru koo def alal njaal yi mbokk yi kenn du ko miiraasaale ndax mbokk yi maa ngi fàttali ne liy maandu mooy miiraas tarika la ñuy miiraas tarika mooy nit ki lim bàyyi nit ki bi muy faatu bàyyi na fi benn téléphone ak fukki junni ak génn kër ak ñaari mbubb su faatoo ñu jaalee ko fukki million kenn du miiraas fukki million yi dañ koy séddoo nuñ koy séddoo mooy bu góor benn jigéen benn góor ñaar jigéen ñaar mbokk yi léeg-léeg nag ñun dañuy jaawale masalam sariya mooy nit ki dafiy faatu bàyyi fi lim fi bàyyi ñu jaalee ko ay million ñu jël millions yi ba koo séddale góor ñaar jigéen benn saa yi ñu ko defee xaj nañ jigéen ña seen àq loola seddoo la war a doon waaye warta doon miraas mbokk yi tarika la ñuy miraas mooy nit ki bi fa jour bi muy faatu li moom ñu wóor na leen lii la moom loola moom kenn sañu koo miraas kenn kenn kenn sañu koo laal miraas ko rek lañ war a def kon maa ngi bàyyi loo xel bu baax a baax ci ne mbokk yi tarika lañuy ñuy miraas waaye am njaal kenn du ko jël di ko seddalee góor ñaar jigéen benn am njaal dañ koo war a seddoo fukki million la fukki doom la fi bàyyi juróomi góor juróomi jigéen kenn ku ci nekk benn million la war a am mbokk yi loolu mooy ak maanu alali njaal dañ ko war a séddoo waaye kenn waru ko miraas maa ngi ciy bàyyi lu xel bu baax a baax akit nag lu mel ni société wala kër guñ fi bàyyi di ko luye boroom kër gi bu faatoo nañ miraas kër gi nañ ko fi bàyyi pour ku mag moom mbokk yi loolu it du charia du maandu ndax ku mës sa mag doo masa moom te jigéen ñii sa yii duñ masa moom du sharia déedéet kon li war a am mooy nit ki bu faatoo kër gim fi bàyyi nañ ko miiraas kuy jënd jëndal ku mënta jënd bu dee day immeuble boo xam ne dañ ko war a luye nañ ko miiraas ñu xam ne kenn ku ci nekk pourcentage tàngam nga ci am suñ ko luyeem at ñu génne xaalis ba ne diw am nga ci pourcentage nangam suñ ko calculer nangam la ñu jox la sa wàll moo xam muy góor moo xam muy jigéen waaye nañ ko fi bàyyi rek di ko luye suñ ko luyeem at dikk ba koo séddale góor ñaar jigéen benn mbokk yi du maandu te du sharia suñ ne nañ ko fi bàyyi di ko luye suñ ko luyeem at buñ koy séddale dañ koo war a seddoo kenn bu góor amee benn jigéen benn góor ñaar jigéen ñaar loolu mooy sharia mooy ak maandu waaye léeg-léeg nag ñun ci suñu maslaha maslaham sénégalais wala maslaha muñ dugal ci biir diine ak ay aadaat daa tax li ëpp ci soxna yi wala gone yi duñ jot seen àq ci miiraas mbokk yi te inna alladina yaakuluuna amwaala zulman innama yaakuluuna fi butunihim naara wa sa yaslawna saira sadaqallahu alazim alali jirim mbokk yi kenn du ko lekk te loolu képp ku koy def bàyyi xel ne yaa ngi lekk alali jirim ndax kat nit ki boroom kër gi kër gi la fi bàyyi nañ séddoo kër gi góor ñaar jigéen benn dañ ko fee bàyyi ñu fayaat ci ay location location yañ ko fi fay yañ fi fay ginnaaw bi borom kër gi bàyyiwu ko fi kon lañ fi fay ginnaaw bi góor benn jigéen benn góor ñaar jigéen ñaar lañ ko war a séddoo waaye kenn war koo séddoo góor ñaar jigéen benn mu desaat beneen point boo xam ne ci miraas ñun dañ koy maslaxaale mooy borom kër gi day faatu ñu xool ñi bokk yaay ñépp ka ka mag ca ñoom ci góor ñu féetale ko dara ne ko yaay teggi say jigéen ndax buñ noppee danañ suivre dana am suivi mooy danañ suivre ba xam ndax delloo na ay jigéenam wala déet kooka day dëkk ca kër ga ba xëy faatu ay doomam miraas kër ga dond ko te fayut seeni jigéen ba tey te fayut ay jigéenam ba tey mbokk yi nañu bàyyi xel ci loolu loolu du ak maandu toujours daanaka toujours bu dee wàllu miraas ñun li ëpp ci suñuy miraas jigéen mooy doon victime wala wala gone jigéen ak gone moom toujours victime la ñu doon mbokk yi loolu nañ ciy bàyyi xel ndax kat ku lekk yi jirim suñu boroom nee na danga jaar sa war a de wasa sa yaslaw na saira la wax alali jirim ku ko lekk ci tooñaange wa sa yaslaw na saira la alquran wax kon nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax waaye mu desaat it beneen tomb mooy que ne nit ki dafa war a maandu digganteem ak ay doomam mbokk yi doom yàllaa la ko jox lum bari bari bari bari bari bari bari ñoom ñépp ñooyam àq ci yow ñooyam daraja ci yow waaye nag nit ki léeg-léeg léeg-léeg ndaw kundaay yi dañ koy def am soxna soo xam ne moo leen gën a jubu ñu jël doomam teg ko ca kaw yeneen doom yi moom ñu def leen ay baaloo la mbokk yi loolu du maandu te du te képp ku koy def danga nga dajeeg borom bi tabaraka wa taala yaayam lum baax baax baax ci yow lum am am am njëriñ ci yow mbokk mi jàppal ne say doom say doom lañ Nu'man ibnu Basir radiyallahu anhu mas naa nettali na ne moom dafa yëkkati dara may ko kenn ci ay doomam bi mu ko mayee kenn ci ay doomam doomam bu jigéen daal di dikk daal ne ko papa yaa may diw nangam mu ne ko waaw mu ne ko d'accorduma de lu dul ne dañoo dem ci kanamu alayhi salaatu wasalaam mu seede ñu nee na ma àndak moom ñu dem ba ci kanamu yonent ci alayhi salaatu wasalaam ma nettali ko fee bi ni mu demee ne ko damaa may sama doom sàngam nangam moom nee na d'accord lu dul ne yow da koo seede alayhi salaatu wasalaam ne ko ndax da ko may ñeneen ñi mu ne ko déedéet moom kese laa may de alayhi salaatu wasalaam ne ko nangu ko ta maandu taragal yàlla sa digg say doom nangul li nga may ne ko maa ngi lay dénk nga maandu taragal yàlla sa digg say doom kon bokk yi nit ki dafa war a maandu digganteem ak ay doomam lum la amal amal amal njariñ ki ci mag ba ci ki gën a tuuti ñoom ñëpp say doom lañ ñoo yem daraja ci yow ñoo yem daraja ci yow kon sa ñoo may demba bàyyi sàmba sa ñoo may paate bàyyi kumba loolu maa ngi koy maa ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ne loolu mooy maandu diggante nit ak ay doomam alayhi salaatu wasalaam wax na ko ci xadis ne nit ki nay maandu digganteem ak ay doomam comme ni mu bëggee ëllëg yamal xiyaam suñu boroom maandu seen diggante ci ak ñeewant ak ak yërmande kon nit ki dafa war a maandu digganteem ak ay doomam mu des beneen mooy maandu diggante nit ki ak ay soxnaam lu garaaw la nag loolu nag fii mu ne moom mooy problème bi nag maa ngi fàttali ne bokk yi. yàlla maandu la santaane waaye santaane wut yamale day ñaari baat yu niroo maandu ak yamale danaa ko leeral alayhi salaatu wasalaam nee na yéen góor ñi ku ci mënta maandu digganteem ak ñaari soxnaam na yem ci benn alayhi salaatu wasalaam moo ko digle de nee na takk leen de ñaar ba ñett ba ñeent waaye kum ci wóor ne mënoo maandu seen diggante yamal ci benn te alxuraan ko waxoon wa in xiftum allaa taadilu fa waxida fa waxida alxuraan nee na bu dee mënoo leen maandu seen diggante yamal ci benn waaye nag riirum takk ñaareel rek nga dem takk tam wóor na ne yow amoo maîtrise mën a gérer sa kër ci coow rek ngay dëkk dëgg la mën a takk baax na waaye mën a yor nag da koo gën ndax kat soxna dafa am àq sa digg ak moom mooy danga ko koo war a dëkkal danga nga koo war a dëkkoo da nga koo war a dundal danga nga koo war a woddu ñett yii boo ci tële wàcc na la waaye boo mënee yépp it te mënoo koo yemale ci ñépp it ñaar ñett wàcc na la yemal ci benn alayhi salaatu wasalaam sax nee na ëllëg yamal xiyaamatul akbar ñi nga xam ne dañoo jéngoon seen diggante ak seeni soxna soo ëllëg yamal xiyaamatul akbar yi bu ñuy dekki dañuy paralysé seen genn wet day paralysé mooy bu ñuy dox dañuy wetu kon mbokk yi nit ki dafa war a maandu digganteem ak ay soxnaam alayhi salaatu wasalaam bi fi bàjjan xadijatu jóge yoraan na lu mat fukki soxna ak ñaar waaye mu moo ne li muy yor ay soxna lépp maandu gu maandu woon seen diggante eggoon na ci su ma saana dem marché jënd dara bu dikkee du dugg néeg gaa yi nag léeg-léeg sama mbokki Modou Modou yi dañ koy def dañuy léeg-léeg nga gis ku jógee bitim réew la muy def ca saag la muy def ca walis wa du bokk ak nag moom ki nga xam ne moom mooy soxna su ndaw si mbagar fekk ba mu koy defal ca saag bu ndaw ba saag àddoo ba mbokk yi loolu du maandu lii charia mooy li nga indi teg ko ci ëtt bi ñëpp gisandoo ko nga séddale kenn ku ci nekk am ci lim ci war a am. alayhi salaatu wasalaam noonu la ko doon defee de waaye. la nga mën a séddale daal ci mbooloo mi def nga ko ci saak bi soo dikkee moom ngay teg ci saal bi ñëpp teg ci bët waaye nag la nga mbagar feegul keneen yaa ngi ko def ci sa saak àddoo mbokk yi loolu dug maandu te loolu du sharia alayhi salaatu wasalaam de su ma saana dem marché jënd ba ñëw ci ëtt bi lay toog woo soxna yi mu ñëw kenn ñu ñëw kenn ku ci nekk mu jox la la nga ca moom su noppee ne yàlla léegi ma sant la ma ca man lépp def naa ko la ma ca tële yàlla nag ma ko jéggal loolu mooy ak maandu mbokk yi maandu ci maandu doomu aadama egg na ci ki nga xam ne soxnaam day liggéey mbokk yi ci sharia alali alali soxnaam araam na ko li feeg mayu ko ko mbaa mu wax ko ne ko ñoo ko bokk tam doon signature yu leer léeg-léeg mu am léeg-léeg nit ki takk soxna soxnaam am alal woo ko mu dikk ñu ànd dem fañ war a dem mu signé ne sama alal ji maag sama borom kër bii ñoo ko bokk sañ nga cee jëfandikoo nu ko soob loola moom moom la moom la engagé moo moom alalam moo la ci may mooy dala ko may rek mooy boole na la ci biir alalam ñoo ko bokk loo ci soxla jëlal su boobaa moom sariya nangu na loolu waaye nag li feeg loolu amul sañoo cee lekk lu toll ne benn dërëm li ma doon junj léegi mooy diggante maandu ak yamale dañoo niroo te bokkuñu soxna si nga xam ne dafay liggéey mën a yokkal boppam bu dee ci misaal rek junni ngay joxe dépense wala ñaari junni ngay joxe dépense ki nga xam ne dafa yor ab liggéeyam te mën a yokkal boppam soo su la kenn ku ci nekk soo ayee ab junni nga koy jox wala ñaari junni nga koy jox kim kiy léggéey te man dara te man banal boppam dara sañ nga koo jox ab junni ki nga xam ne deful dara sañ nga koo jox junni muy dépense am waaye nag yëkkati ñaar téeméer may ko ko ngir mu yokkee ko ngir mu dimbalee ko ko loola moo koy jotee wut ak ak maandu dara loola moom jotee wut ak ak maandu dara kon daal mbokk yi ñu bàyyi xel ne jaam bi dafa war a maandu ci digganteem ak ay soxnaam waaye dafa war a maandu it ci digganteem ak ay doomam dafa war a maandu it ci liggéey bu muy liggéey moo xam day commerce. moo xam day maanaam fonctionnaire la moo xam lu mën a doon ndax gis nga mbokk yi alxuraan nee na aw xura nga ca sawara woo xam ne ëllëg jamono xiyaam ñi ci yàlla di lakk mooy ñi nga xam ne dañuy jaay maanaam ñoom tey boo dikkoon di leen jaay gerte wala nga jaay leen dara suñ ko tegee ci bascule bi maanaam nu mu gën a nu mu nu mu maanaam nu mu gën a diisee nu mu gën a baree seen côté la ñuy wër waaye suñ lay jaay nu gën a manqué la ñuy wër loolu mooy tatfiif tatfiif moom la alquran di wax naan bismillahi arrahmani arrahim waylun lilmutaffifin alladina ida ktaaluu ala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuhum yuxsiruun mooy ñoom daal bu ñu lay nattal day manqué te yow boo leen nattal dañuy fexe mu ëpp nit ki dafa war a maandu ba ci fonction mu yor di liggéey fonctionnaire bi nga xam ne dañ koo jox bureau muy liggéey dafa war a maandu diggam ak boroomam yonent bi alayhi nee na bépp fonctionnaire buy lekk ger bokkoo ci ñun jullit ñi bokkoo ci man alayhi salaatu wasalaam ger mbokk yi am ger alayhi salaatu nee na képp ku koy lekk bokkoo ci man kon ba ci tal lekk ger bokk na ci mbokk yi ba ci enseignant bi nga xam ne dañ koo affecté ci baram mu war faa jàngale heure yi mu war a jàngale muy maanaam heure bu mu waree jàngalee mu war koo jàngale te amul benn ngant nekk ci boppam joxew lay su boobaa ñaari bàkkaar topp na ko ci mooy kane lekk na lu ko léwut te wax na lu du dëgg moo tax nit ki fonction bi nga xam ne moom nga yor ak fonction bu mu mën a doon mbokk mi alayhi salaatu wasalaam nee na nang ci maandu maandu ci mooy bu ci laa bu ci def lu loo ci wërta def tey bu ci man bu ci wàññi loo ci wërta wàññi lim lim la waree defee koni lépp loo ci xam ne tële nga ko sa digg ak sa borom lay des kon jaam bi dafa war a maandu waaye ba ci fonction boo xam ne moom la yor kon mbokk yi ñu bàyyi ci xel ci ne jaam bi dafa war a maandu ba ci fonction boo xam ne moom la yor ak fonction bu mën a doon nag ba ci àttekat bi nga xam ne moo war a àtte diggante nit ñi na seet diggam ak boroomam te xam ne lépp lu mu atte ci àdduna ëllëg yawmal xiyaam da koy attewaat alayhi salaatu wasalaam kat nee na ñetti attekat a ngi nii yoo xam ne ñaari sawara lañ dëkk lañ ne ñetti attekat yoo xam ne ñaar ya maa leen di seen sawara kon ba ci attekat bi nga xam ne mooy atte diggante nit ñi bu mu jox nit àq ngir dara jaam waaye it bu mu jox nit àq ngir ne dafa néew doole te yërëm naa ko ci néew doole gi ngir ne dafa néew doole yërëm naa ko ci néew doole gi tax ma jox ko àq déedéet mbokk yi loolu du maandu waaye dafa am daraja nii la toll ñii ñooy ay bokkam wala diw la bokkal ba tax ma jox ko àq mbokk yi loolu it du kon daal mbokk yi li ñu yàlla sant ñun buñ ci tënkoo insha allahu taala suñu àdduna dana jag waaye suñu alaaxira dana jag ndax kan mbokk yi yàlla yàlla maandute maandute gi nga xam ne moom moom la doxal suñu diggante ak moom bu ko neexoon bañ ko cee fekk waaye dañoo bëgg a jox misaal dañoo bëgg a jox misaal te bëgg ñoo orienté ci ñun ñu jub waaye ñu dund dund gu teey ñu bañ a reyante waaye bañ a sàccante waaye bañ a tooñante moo tax yàlla euh, yàlla jël maandu def ko muy suñu di mu nekk suñu diggante te loolu mooy firi waxi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ji moo waxoon ne kan mooy jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne jullit ñi mucc nañ mooy koo xam ne jullit ñi mucc nañ ci loxoom waaye jullit ñi mucc maanaam derub jullit ñi mucc nañ ci deram waaye jullit ñi mucc nañ mucc nañ ci mbooleem yi nga xam ne moom la yàlla tere maanaam mooy koo xam ne julli ñi mucc nañ ci làmmiñam mooy koo xam ne julli ñi mucc nañ ci loxoom mooy koo xam ne du wax jullit ñi lu bon waaye du def jullit ñi lu bon kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam na jullit dëgg mooy koo xam ne jullit ñi mucc nañ ci làmbiñam waaye jullit ñi mucc nañ ci loxoom mooy du leen wax lu ñaaw waaye du leen def lu ñaaw te loolu ku ko def jàppal ne liñ naan dayob maandu suñu borom jox na la ko tabaaraka wa taala kon mbokk yi lii mooy tomb bi nga xam ne moom lañ indi woon tey ngir laayante biir ko ak yéen te mooy maandu al adl te mooy li nga xam ne yàllaa ko def waaye sant ñu ko suñu diggante mu doon loo xam ne ñun buñ ko defee jàmm dana nekk suñu diggante waaye dund gu teey dana nekk suñu diggante seen émission keppaaru mag ñi la woon fii ci seen seen tele réew mi TV seen mbokk sëñ Baara Mbàkke ngeen ko àndaloon ngeen di ko topp ci TNT canal 108